حمدا لمنسل دنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل Aska salaam doomu Mbàkke la ñu nekk Ndakaaru di liggéeyee foofu ñu gis ne feebar bi di xew yi ñu koy wax coronavirus ci suñ dëkk bi muy Touba muy eau de javel yi nga gis ak gel yi ak satala yi ak madaar bi ñëw tamit pour sensibiliser ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi wax leen ñu gën a soñ xale moytu bu baax a baax li xew muy ak cet li ci jiitu mooy ak cet di raxas loxo yi mu sa daara ji nag ñëw fi mu bokk ci daara yi ñu ciblé moo waraloon tey jii suñu ñëw fii di la wax ne li ñu gënoon a bëgg mooy bu ñu fi jógee kenn ku ne xam ne feebar bi am na te mi ngi lor ngeen gën ñoo dimbale ci soññ yi nga xam ne tey jii nii ñun ñoo koy def muy téye xale yi ci cet dimbali len tamit ba nga xam ne bi yalla bu mu fi ñew ak jam ngeen ñaanal tamit Sénégal ndax yeen ni dañ leen ci wolu ñu borom daara yeen ñi nekk ak gone yi ñaan ngeen ñaanal ñu baaxa baax feebar bi yam fi di ci bay danañ ci bay sunu yow tank inshallah allah waaw di la wax nak yow kilifa diina nga hmm. ta sa ñaan soxla nañ ko fi rewmi mi toll nga ñaanal Sénégal jam ñaanal Touba ak Mbacke jam ndax bu ay amee kenn du ci muccu kon nak yalla na jam sax amiin amiin di la ko ñaan di ko sàkku ci yow di ko sàkku ci xale yi. waaw ñoom ay xarit yàlla lañ. waaw seen wax di daal ba seen wàll nañ ko ci bay. Mm-hmm. waaw. léegi sal moom da bës rek sa loxo. bu ñu benn ndongo daara mënee ñëw ñu wala ñu jox la nga sa loxo ñu wan la. lu lu luñ ko liggéey moom. moom luñ ko liggéey dañuy. gis nga ko mooy ndox ndox la. ak ak alcool lañ ko raxasee ak hydroalcoolique. alcool bi nga xam ne moom la ñuy raxasee euh, góom. moom microbe bi mooy raxas mooy raxas microbe mooy dindi microbe yëpp. muy antiseptique désinfectant day dindi lépp luy microbe. Hmm. ci loxoy gone yi. waaw loolu loolu loolu loolu lañ ko defaree. waaw bu dee alcool de moom xanaa day ay ay ay façon maanaam bi ñuy raxasee góom comme ku feebar. alcool boobu bokul ak alcool bi nit ñi naan. alcool sàngara déedéet bokku ñom ñaar. <laughs> Ah, di alcool bi mom moy moy ku wéré di alcool bañ lay raxassé ci ci ki ba waaw ah, alcool boobu la. waaw léegi dinañ leen dinañ leen ak ko جميع المسلمين تر ay ndaw la yu nekk Dakar juddoo Mbàkke yaroo Mbàkke ñu gis ne feebar bi mi ngi law Touba te dañ naan xoddiku ci ba nga lakkalee gut ñu gis ne comme ñun waa Mbàkke lañ te mi ngi Touba te am na population boo xam ne vraiment ñoo gën a soxla yelloo ñu leen di dimbale muy daara yi ndax suñu njaboot ñoo fi nekk te amuñu taxawu ñu ne nag bara ñoo def lenn dañuy ñëw ci yéen ñi nga xam ne yéen a jiite daara yi def fi ay dons yoo xam ne pour sensibiliser la yow mi nga xam ne yaay borom daara ji ak ndongo yi fi nekk ñu moytu feebar bi nga xam ne tey ji dugg na suñu dëkk ba pare ci cet ak tamit dégg li nga xam ne mooy li kilifa yi di wax ñuy raxas loxo yi di bañ jegente bu bari bi di bañ wàññi nuyoo bu bari bi te it di contrôler xale yi bu baax a baax loolu moo taxoon tey jii nii ñu gis ne kat dañoo war a ñëw Mbusoobe ndax fii la lépp tàmbalee waaw ay ay taalibe lañ ñu ne nañu li ñu njëkk a def mooy ñëw ci sëriñ daara yi ndax fii la lépp xewe fii la tàmbalee sunu ndaw tey yaa nañu ñaal na yeex fii la ñuy waaw moo taxoon ñu ñëw tey jii nii indiloon la ay satala indil la madaar indil la eau de ak lave-mains yi nga xam ne duñ ci mën a raxas sa loxo bu ci mën a dimbalee gone yi ngay jàngal ñu ci mën a raxas sa loxo wala jamii al muslimiina fi liqaar بيادهم تخام ويا جميع العلماء هامدين ويا جميع العاملين مخلصين ويا جميع المخلصين زاهدين جميع الناسين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين وامنا آية يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا wonu ñu saytu seen wér gi yaram hmm. seen cet hmm. surtout jamono ji ñu toll ñu xam ni nii hmm. sëriñ mun tax am mbàkke suñu yaakaar am na jëf am solo ñu ci def ñu ba ñu nekk ay ay ay gone nekk ci dëkk bi amoon na sax suñu mën-mën dëkk dëkk dëkk ak wóor ci fuñ ko bëggee waaye kenn ku ne suñu sacrifier sa bopp fexe jéem a taxawu population bi ci wàllu li nga xam moom lañ gis ñu xeeb ko lool parce que ku ne xam ne daara ji li muy dajale si ay ndaw lépp loo xam ne moom moo war ci daara ji ñu def jamono ji ñu toll moo tax ñu indi fi madaar ak eau de javel ak raxasukaay bi mm. waaye dem ak gel bi mm. parce que njariñ bi mooy mm. Euh, mën nga sa loxo bu taxee. Mm. wala nga njot ne tax na. Mm. mën nga ko def sa loxo. Mm. Euh, daal di maanaam kii ko say euh, sa sa baaraam ba mu set wecc xam na ni mook bii mook satare bi ak ñoo yem wàll utilité waaye mais bii dafa gën a efficace maanaam nongo yi nga xam ne ñëw si daara ji wala ñu si nekk bari ñuy def dara sëñ bi defal nañ seen loxo ñu laal si seen loxo set wecc même chose bu fekkee dañuy lekk wala buñ toogee de temps en rek. Mm-hmm. ñu mën a dem raxas seen loxo ba mu set wàcc. mën a xeex jàngoro bi. waaye tamit daf leen di ñaan ay kilifa ngeen di yëngu si alxuraan. Mm-hmm. ngeen ñaan suñu borom. tawat bu jóge fi. ci lu gaaw parce que loraange gi moom fu ñu ko takk rek weesu na ko. Mm-hmm. te fii zone bi ñu nekk am na ñoo xam ne ni gëmuñu ni. feebar am na. te lu am la. parce que li am Touba. bu ñu jàpp ne mën na bañ a àgg si Mbàkke Touba Mbàkke naan gi dégg dikke mën na fi am waaye nag ku mel ne yow yor ay ay ay gone yu teg sa loxo sensibiliser leen wax ak ñoom ci cet parce que même bu dul lii sax ñëpp dañoo war a sàmmonte ak set réew mi ci li mu wax ki ni ñu war a sensibiliser doomu aadama yi ñu bàyyi xel cet gi ci wàllu fogaru ndax dañuy wax ni fogaru moo gën faju te loolu islaam da koo bàyyi xel loolu baax a baax a baax jëf ji yàlla yi nga xam ni dañuy taxaw askan wi dañuy taxaw daara dañuy taxaw julli ñi te lii moom yàlla rek tax ngeen def ko amu leen benn dong amu leen fi kenn ku ne xam waajuram waaye yalla rek moo tax ngeen def ko ak bëgg doomu aadama ak bëgg Sénégal yàlla yàlla sàmm leen te bëgg sa réew daa boo ci gëm yàlla nit ki lu mën a gëm yàlla te bëggul réewam gëm yàlla day manqué waaye nag kon bëgg sa réew te la yàlla boole la nga nga nga fonk ko di participer loolu am solo la rawatina daara yi kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm di siyaare mboolem mboolem mi nga àndal kon demee loolu mooy kàddu yi gàtt na waaye kontaan nañ bëgg nañ nit ñoo ngi ko jàppee ni kuñ jox ay milliards ndax lu rëy la loo xam ni maanaam euh, ci ñun te bu du woon yéene dañ koy xool nu ñu ko wutee baa ngi xool nu ñuy taqale ba def ko dafa ko donga yi kon jazaakumullaahu xayra waaw وكفهم منا أذى وليلا am na solo ah. ndax tey mënoon ngeen ah. euh, participer ko ci un chef de quartier ah. wala euh, euh, un délégué de quartier bu ko defee moom na ko neex la ko gi doxale waaye fab gi ngeen ko fab ak xam gi ngeen xam àddina jiital ko ba yëkkati ko ba teg ko ci loxoy ki ngeen ki ko yeyoo loolu rek mu am am na solo kon nag yàlla mi nga xam ne moom dara tëwu ko moom moo xam uh-huh. tey xam ëllëg uh-huh. yàlla na leen yàlla teeru ak ngëneel yu yu gën a kawe ci ngëneel yi. jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñi nag dañoo yar ndax yaakaar naa daara ji moom. waaw Mbàkke Bawol ñëpp jaar nañu. waaw dëgg la ku ko xamul dégg nga. waaw dëgg la Baye Baye Mansour. waaw leer naa ne am na ay cadre supérieur nekk fii. Mhm. ñu bari jaar nañ ci. waaw walaay loolu dëgg la moom. moo tax moo tax ñu ñu njëkk a taamu daaraam ci ci jàmm. walaay yàlla lépp ciy ah, baaxe incha allah lépp ciy baaxe. xam nga dañoo dañoo dem dañoo dem Kaolack maa ngi moom. Mhm. ñu dem euh, atelier Alaaji Seeni Seck. waaw. Eh, ma présenté ko Baara Baara ni ko sëñ bi kon da ngay suma nga dugg ci biir eh, kii eh, chambre de toilette bi nga nga sangu. Hmm. boo sangoo pare nga nga nga ñëw xaar añ bi. Hmm. fa xaañ xaaruñu fa sax añ. Hmm. léegi nag bi ñu bi ñu bi ñu ci kër gi Baara la ñu toog foofu ma ak moom. ma ko doomi alaaji doomi doomi doomi doomi alaaji baara yu ci bëri mhm. kii moo leen jàngal alxuraan <laughs> waaw moo leen yoroon <laughs> foofa rek waaw ci moom lañu ci moom lañu sukkandiku xool ma loolu rek est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ak màggal gi moo tax. ak ak màggal gi moo tax. waaw moo tax ànd incha allah ñu saako ah loolu moom moom. jël na loolu papa maam kër papa xam nga daan naa fa jàng foofu gannaaw ci gannaaw xam nga foofu ci kër gi. foofu foofu mère Kaltoom fi. am na benn si kii war alay baar moo moo ne moom bu bu la kii indi nañ la añ foofu. yaayam am soxna Amina Gueye it sama jigéen la wax dëgg yàlla ndax faale aat mi ko jur ñoo bokk dëkk ci Jolof muy suñu mbokk di suñu lépp kon nag moom di moo du xam gone waaye gone moom gone moom xam nañu kon nag nii rek la waaw kon nag ñi ñi ñi ñi kon nag ñun ngi la ñaanal nekk seen gannaaw nag a baax a baax kon li ma la ngeen ko ci seen kër indi ngeen ko ci seen bopp kon indi ngeen ko ci seen bopp incha allah xarit kontaan nañu baax a baax dañu woon ca daara ndax yàlla musal leen ci feebar ngeen di raxasu ba set dee raxasu ba set te ngeen bañ dem fenn ngeen toog ci daara ji dégg ngeen bu leen génn bu leen dem fenn toog leen ci daara ji ngeen di di ngeen ngeen di ñaan ci mu fi ci mi دفعنا دفعنا بابا دفعنا دخلنا جرجف معي برجف ضحك جرجف جرجف يا ابو رحمة اليوم سلاة النسب وجعلنا هنا وأنا زاد ابتدم تفضلا فنغسان asalaamaaleykum sëñ Baara ñu ngi lay nuyu baax a baax di la wax ne tey jii nii ay doomu Mbàkke ñoo ñëwoon indi la lii nga xam ne mooy ay zel ak lépp loo xam ne dañ koy wit ngir fagaru ci feebar bi xew ñu koy wax coronavirus. ñu xam ne nag jamono ji mi ngi lëmbee senegal ndax mi ngi biir Touba te Touba ak Mbàkke amul xaj tax na ba ay doomu Mbàkke kenn ku ne ci li nga yor mu néew mu bari ñu ne nañ ko dajale ñëw fii si nga xam ne mooy suñu dëkk nga xam ne fii lañ juddoo yaroo fi te ñu war a taxaw tamit population bi fi nekk ñu jël ne dañuy def cible muy ndongo daara yi ak sëriñ daara yi ndax yaakaar naa ne fa ëpp ñi nga xam ne tey jii nii ñoo gën a yeyoo ndimbal bi muy lii nii nga xam ne ay doomu Mbàkke rek ñoo ko def ñi nekk Ndakaaru tey jii nii te dëkk ci dëkk bi ñu dajale seen seen doole mu néew mu bëri ne nañu wër ci daara yëpp te yéen ñi nga xam ne tey jii nii yéen a jiite daara yi yéen a gën a mën a nekk communicant ndax yéen a gën a mën a wax ak ndongo yi ci set ndax feebar bi xew ci ñàkk set ci la ñuy gis ne fa lay jóge muy li nga xam ne tey jii nii loxo yi taq wala tey jii nii xale bi mën na jëlee feneen microbe ñëw def ko ci gémmiñam ba nga xam ne tey jii nii feebar bi mi ngi mi gën a law te du fekkee dañuy xeex feebar nag dañuy dem xeexee ko fa nga xam ne fa la tàmbalee wala tey jii nii fa la ëppee doole muy diggante Touba ak Mbacké moo taxoon ñu def cible ci daara yi. bëggoon yow mi nga xam ne tey jii nii yaa fi nekk nga mel ne relais ci ñun relais bi nag moom mooy tey jii nii di dimbali xale yi ci lii ñu la jox mooy di jël eau de javel bi di jël madaar bi di jël zel bi nii ak satale yi ñu la jox di leen ci raxas bis bu set di raxas seen loxo du bu ñuy soog a ñëw dañ dañu taamu mooy nga jël zel bi kenn ku ne taxaw ci bunt bi nga fompal koy loxoom ndax tey jii nii yaa gën a mën a aar kenn kenn ku mu mën di doon tey jii nag waa Mbàkke wala ay doomu Mbàkke ñoom ñoo dajale seen alal ñëw fii di pour jox la ko di la di wax tamit nga ñaanal nit ñi te nga sensibiliser ñi fi nekk ñu xam ne feebar bi am na te mi ngi lor tey jii nii Touba yaakaar nañ ni ak Mbàkke ñoo ci ëppale kaa donc nag bu ñu demee tey ba mu toll foofu ñun waa Mbàkke dañu war a def moom mooy jiima sàmm dëkk bi ba nga xam ne kaa yi dina wàññeek wala mu dem ba yam fi moo taxoon ñu cible daara yi di la wax ni tamit euh, dañu bëggoon ngeen ñaanal senegal ndax daara yi lépp a fi xale lépp a ci moom sëñ Saali mi ngi koy waxoon xale mi ngi ci lépp a ci moom yàlla mi ngi ci xale yi dañu bëggoon xale yi ñaanal Sénégal yow tamit mii borom daara ji nga ñaanal Sénégal jàngoro ji mu yam fi bañ a law ويزلي ما يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير jégaluwaat bu baax di la sant bu baax di la gërëm ñi samay xarit lañ ak samay mbokk dëkk bi dëkk Mbacké féete Dakar dafa liggéey bi njigee xew-xew bi am ci réew mi nag muy feebar bon bi fi dugg nga xam ne moom nu muy waalee dafa garaaw te comme am na ay prévention prévention yoo xam ne moom la médecin yi ay gel ay saabu ci sangoog yooyu ma fii ci penc mi yow yaa fi yow yaa fi suñu mi soxla nañ lu mel noonu ay xale dañ fi ñëw di jàng see nit ñi ñëw di fi jullisee pour nga gën a sensibiliser ñi ñëw ci jàkk ji ak xale yu ndaw yi nekk ñu veillé ci li nga xam ne moom la médecin yi wax comme ni ko suñu muntaxaa defee jël gel bi di raxasu ku ci dugg ci jàkka ji raxasu xale buy ñëw jàng si raxasu buy ñibbi raxasu ci loolu daal la ànd ak ñi ki nga xam ne mooy Modou Mbacké moom fan la nekk moom mooy gën a xam affaire bi. kon bu ngeen jógee sol seeni i dàll yor seen oto topp xamu leen naaju tàng xamu leen mu sedd xamu leen guddi ak bëccëg ngir bëgg lii jóge fi kon loolu wax dëgg yàlla ameel nañ leen fi ak cant ñëpp leen ko si ameel nag muy njiitu réew mi muy xalifa général yi muy mbooleem ñi nekk si Sénégal gépp ak ñi nekk si àddina bi yëpp. ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk faral di nekk si jàkk yi suñu message mooy di gën di jottali doomu aadama yi ñiy gën a farlu ci ak cet ndax cet kat lislaam moo ko njëkk a digle xam naa dañoo ñëwaat dooleel ko si. ngir jox ñu matukaay yi ñu nga xam ne moom lañ ko defee si wàllu àdduna waaye fekkoon moom lislaam tëral ko bu yàgg yàgg kon nag lii nga xam ne moo tax ngeen jóg te bugg leen def def gi ngeen ko def ko lu may ngir ñu neel delluwaat seen jàmm loolu rek moo tax ngeen ko def ngir lii fi nekk jóge jóge te yàlla mi ko fi indi mën na ko fay jëlee waaye na booleeg nag sabab lii nga xam ne moom ngeen fi indi ngir ñu di ko defee ni ngeen ko waxee wax ngeen ne li ngeen fi indi nañ koy fab di ko utiliser muy nañu fexe ba set raxas loxo yi ba mu set muy gone muy mag muy góor muy jigéen fépp fu waaye mën a nekk bu génnee buy dem na raxasi loxoom buy ñëwaat na raxas ay loxoom set gi daal bu ñu fee nekkee te wéral ko yàlla mën na ko fi jëlee te yàlla nañ ko yàlla na ko fi yàlla jëlee it te bañ ko fee indiwaat yéen ñi yàlla nañ yàlla sàmm sàmm ñu sàmm jullit yi ba li ngeen fi yéene ba tax ngeen di ko def seen yéene yooyu yàlla àggale ko jëlee ko fii nag ba dootu fi amati ba mukk nag waaye nag li ngeen defee nañ ko respecté bu baax a baax ngir li ngeen bëgg ñu am ko li ñu bëgg ñu ومؤمنين مخلصين صالحين وغدا يوم الخيام بجاه غير من سبى الأمرار ووهب المغروب والأخان محمد طبيبنا الهمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw ba ñu sante yàlla julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di jënd sant Serigne Touba di ñaanal si Mountakha Mbacké xalifa général kull murid mu yàgg fi te wér di ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifa Cheikh Ibrahima Fall njabootu Serigne Touba gépp njabootu Maam Cheikh Fall gépp ñu ngi leen nuyu di nuyu askanu Sénégal di nuyu askanu waa Mbàkke ah lii nag bu ngeen gisee euh, euh, mu am du dara lu ay ndaw yoo xam ne dañu dëkk entre Touba ak Mbàkke ñu si ëpp na xëy na di yëngoo sa Ndakaaru ñu gis lii am fii si Sénégal euh, yàlla def nag si ndogalam xëy na cas yu ëpp am fii si suñu département de Mbàkke muy fii si Touba donc ñu japp ne ñun ay taalibey Serigne Touba lañ ay citoyen lañ war nañu dajalo xol lepp lo xamne war nañ ko mëna def ngir fièvre bi baña law ndax yalla dimbali nañu ba ñu conscient que ne l'heure est grave que monde bi fep fo xol dëkk yëpp dañu jaxlé ñu gëm ne ñun euh, suñu participation war nañ ko apporter au niveau du département donc biñu concerté wo ñu ne pourquoi pas ñu def ben geste bo xamne ne danañ jouer suñu par participation ngir xeex lii nga xamné mom le moy coronavirus te président de la république woote ko waye ñu gis suñu xalif général des mourides génne une somme importante 200 millions def ko ci pour xex kon ñun en tant que ndaw en tant que ay talibé dañu japp né li suñu Muntaxa Mbàkke woote ndaw yi Touba gépp la ci wo ndaw yi Sénégal gépp la ci wo kon luñ siy def mu néew ko bëri kenn ku ne la nga am. mu néew mu bëri nga def ko ci ngir xeex feebar bi moo tax ñu dajaloo jënd ay gel jënd madaar jënd ay eau de javel jënd ay masque jënd ay gants lépp ngir séddale ko fi nga xam ne fa la regroupement yi di ëppee te xëy na mënu faa ñàkk rawatina muy daara yi. donc moo tax bu ñu xëyee ñu dem ci daara yépp dem ci jàkk yi dem ci kilifa yi li njëkk mooy sensibiliser leen ñu xam ne lii lu existe la d'abord wax leen tamit. lii nii lañ koy moytoo wax leen tamit mooy yii lañ koy moytoo ñu indi leen ko ñëwaat tamit fii nga xam ne mooy njakal ak fekk fi euh, sëriñ bi fekk leen si jumaa ji ñoom tamit sëriñ sëpp ñu am mbégte bi ñu joxee bi ñu waxee ne lii euh, ndogal la boo xam ne yàlla ko wàcce waaye itam nañu suivre li nga xam ne médecins yi wax nañ ko te loolu mu si ëpp solo donc am nañ mbegte en tout cas bu baax di woo nag di woo képp ku dëkk tuubaak ak Mbàkke mën naa ne sa bépp taalibe Serigne Touba mën naa ne bépp sénégalais que lii defuñu ko muy action politique dañoo jàpp ne kenn ku ne am nga wàll ci xeex bi donc arrêté wul tey lii commencement la dañu commencé indi ay eau de javel indi ay yeneen ak yeneen bëgg nañ fii ak ay fan yu néew ñu indi yeneen loo def ko ci yeneen kër yi diine def ko ci yeneen daara. ndax xëy na dañuy wax ne làmb dajut fépp donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom lii yem fi di ñaan yàlla suñu borom ñaan yi sëriñ ñëpp ñaan suñu borom dégg ko ba feebar bi yem fi jërë ngeen jëf. suma naataango bi waxee léegi muy fàllu xuma noonu lañ koy eggalee mooy li nga xam ne dañ koo sumb mu door tey ñu ànd ñun ay jeunes yi nga xam ne ay ressortissants lañ ñi nekk Dakar. di xeex tey jii nii li nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne mu ngi si dëkk bi te ñu xam ne mi ngi Touba te day law mën na law ba ñëw Mbacke te ñaanuñ ko yàlla mais nag Touba ak Mbacke yaakaar naa ne amul fenn foo xam ne mën nañ fa am na xàjj léegi li ñuy def rek moom mooy di remercier ñi nga xam ne tey jii nii jàppale nañu euh, képp ku ñu jàppale ñu tàmbalee ko ci sunu xalifa euh, di ñaanal tey jii nii sañ mun Mountakha mi nga xam ne moo njëkk joxe deux cent millions ñaax ñu tamit ñu ñi nga xam ne tey ay taalibe lañ ba ñu mën koo def di remercier sëñ Galas Mbacke mi nga xam ne tey jii nii mooy sunu sang nekk Mbacke Bawol moom mi nga xam ne tey jii nii initiative bi nga ko jëlee da koo rafetlu ndax tey jii nii màggal gi taxaloog tey jii nii lii xew moo ko teree ñëw mais bu doon woon loon dina ñëw jàppale ñu en plus tamit rassemblement yi nga xam ne tey jii dañ koy aaye moom moo tax ñu bare bari ñi nga xam ne tey participer nañ ci mënuñ cee ñëw mais bu doon woon loolu yaakaar naa ne lii dina ëpp nii li ñuy wax rek moom mooy que ni ñi ngi remercier ñëpp toutes les autorités yi nga xam ne tey jii ñi ngi Mbàkke ñi nga xam ne dimbale nañu ñi ngi leen di remercier di wax ne nag affaire bi du fi yem c'est une première mais ñaanu yàlla mu yem parce que dañu bëgg continuer ces actions sociales ci yeneen domaine

yaakaar naa ne tey la door mais ñaanu yàlla mu yem fi tey ñi ngi remercier nag képp koo xam ne tey jàppale nañu amul xaj amul seen te ñuy wax ne yemagu fi ñi ngi remercier ñëpp sans exception